bokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baal àq te di ko sàkku ci yéen te di leen jaajëfal di jiital ci nuyoo yeeg ziyaar yi a seex muhammadul muntaqa mbàkke moom sëriñ muhammadul basiir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wër te yofal yan bi lool naal yi mu naal fas yéene ko liggéeyal sëriñ Touba na ko yeggale di nuyu kilifa diine yi fi teew ca suba ba tey kilifa yu bari teew nañu fi tàmbale ko ci kilifa gi nga xam ni ñoom lañu nu tuddee bés bii te sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha Abdoul Wadoud teewaloon ko fi di bu baax a baax a baax mboolem kilifa yi fi daje rekk ku lim dangay desal kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi tàmbalee ci aimma yi ñu ngi leen di ziyaar bu baax di ziyaar bu baax kilifa aada yi waaye di ziyaar góor yàlla yi fi teew yépp ak soxna yi di wax ni lii ñu di taxawal te at mu jot ñu gis muy gën am solo lool macha allah yal na ko yàlla saxal ñun ñi di ci teew bu baax a baax di ci ànd sunu mbokk sëriñ Moxtaar Fay di ñu taxawal taxawul bés bi moom mi nag xam naa dee su ko présente waat kenn fii ndax xam gi ngeen ko xam bu njëkk dañ daan présente ci njàngam ba bi mu yegsee ci loxoy sëriñ saalihu mu yar ko def ci moom li mu def ci moom dénk ko li mu ko dénk mu ànd ak moom ca liggéey boobee ba sëriñ saaliw làqu ci zaahir waaye ndénkaane lam ko dénkoon mu yor ko ne ca ba sëriñ Muntaqa mi nga xam ne bu nuy wax lu bees ci moom loole la wax muy ndénk ndénkaane lu ko sëriñ Muntaqa dénk te tey wóolu gim ko wóolu dénk lu bari ma xam ci lu bari nag loo xam ne nii mu ngi koy doxal digganteem ak sëriñ ah, moo ak ak sëriñ Moxtaar mi tey jii rek boo demee ci bibliothèque bu Daaru Minam muy bibliothèque bu mag bu fa sëriñ Muntaxa def moom mii boo demee fekk la ko fa sëriñ Muntaxa dénk mu di ko fa taxawu teewul liggéey ba ko sëriñ Saaliw dénkoon mu boole ca liggéey booba yor ko kon loolu ñi ñu koy ñaanal rekk suñu borom mu gën a gën koo dëgëral ndax ànd ak sëriñ saaliwu sëriñ mun Muntaxa dellusi feddali kóllëre googu dénk la ay responsabilité loolu lu rëy la yal na yàgg sëriñ Moxtaar kon doon def lu dut jox la kàddu gi nga waxtaan ci liggéey ak jaamu yàlla xam ngeen liggéey ak jaamu yàlla dafa am relation ak yoonu murit bu nu wax yoonu murit dëgg dëgg dëgg dëgg lii ko fondement fondement dëgëral ko mooy liggéey ak jaamu yàlla jëf jël ñaq tedd kon sëñ Maxtaar kàddu gaa ngi noonu bismillah auzu bi kalimaatillaahi taamaati min sharri maa xalaq bismillaahi arrahmaani arrahiim wa wa mawlaana muhammadin wa ala wa ashaabihi ajmahin assalaamu wa barakaatu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci niyoo bi kilifa yi nu fi fekk di leen jox seen wàccuwaay di ñaan sax Muhammadul Muntaka yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér te yàggal nu ci ginnaawam ba lépp lu mu sémb naal ko liggéeyal Serigne Touba lépp nu ànd ko ak moom te tal ko xam naa bala ñoo dugg ci waxtaan wi rek dañuy mottali lenn ci ay kàddu yoo xamante ne dañ noo dénkoon nu jot li leen ko te mu bàyyi ko ci njabootuk sëriñ Abdul Akram gi fi teewoon sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Wadud mi nga xamante ne bii moom la sëriñ Moustapha Abdul Akram yónni muy doomi sëriñ Abdul Wadoot sëriñ Abdul Wadoot sëriñ Moodu Farmata miy waajuram mooy taawub sëñ Aafe sëñ Moodu Farmata moomee mooy magi sëriñ Abdul Akram mi ñu tudde bés bi sëñ Moodu Farmata moomee moo jur sëriñ Abdul Wadoot muy waajuru sëriñ bi fi teewoon doon wax ci kàddu sëriñ Moustapha Abdul Akram sëñ Moustapha di baayam doyloo ko ci lu bëree bari yabal ko fi bi muy demit daf ma batale xamal ma ne li ma bëggoon a wax ci sëriñ Abdul Akram ginnaaw moom lañu ñu tudde bis bi ginnaaw yaa ngi fi mën naa koo bàyyi nga boole ko ci sa waxtaan yàlla dogal na maag moom yàgg nañoo jaxasoo ay doomam yépp maa leen jàngal alxuraan ca xel kom loolu moo tax bim nu fi gisee mu bàyyeenu loolu bis bi ki ñu ko tuddee di sëriñ Abdul Akram ay na am na ñu ko fi xam ndax am na fi ak njaboot waaye tudde ngeen ko jëmm ju am ngërëmul sëriñ Touba jëmm ju am ab cër ci yàlla xamle jëmm nag buñ ne sëriñ Touba ko jur moo ko yar doy na sa kaa xamle ndax sëriñ Touba ak waajuram ñoo bokk Maam ant Anta ci keppaaruk sëriñ bi la ganee jamono itam ci biir kër sëriñ bi la ganee jamono sëriñ bee joxe aw turam ñett yooyu doy na sëkk wàccuwaay ci béréb bee ca njaareem ñu koy wax daaray kaamil ku fa dem tey jii dana fekk bët bu set ñu defa wàccee juróomi kaamil ci bis ci béréb boobee fa la Serigne Abdoul Akram feeñe jamono ba nopp feeñ jamono ci guddi kasu rajab muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab ci atum 1915 di guddi gi nga xam ne ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam demoon ca boromam ñu jox ko fa julli juróom ci guddi googu ci la Serigne Abdoul Akram feeñ jamono ci biir kër Serigne Touba gi waajuram wu góor di seex Aafiya Mbàkke bokk ak maam seex ante lépp di ku sëriñ Tuuba radiyallahu taala gërëm di ku sëriñ Tuuba doyloo bokk na ci sëriñ bi moo ko jàngalal boppam ca Poroxaan mook sëñ seex Coro waaye itam musta tàqalikook moom bi muy ndaw ba ni mu wuyjee sunu boroom fekk cheikhul xadim radiallahu taala sëriñ bi jàngal na ko ba am njàngam àgg fi njàngi kilifa yépp di àgg loole la cay firnde am na kilifa goo xam ne nii ci boo rëccee Cees jëm njaareem tuuti ngay dox romb dëkk bi mu nekk kilifa gu ñu ràññi woon la ci xam-xam goo xam ne dafa wëllërante woon ak sëriñ Aafiya benn bi sëriñ Aafiya mas naa jóg di ko seeti ba mu àggee fekk mu dem tool ñu dalal ko ci néeg ba mu toog ca kaw lal ba di ko xaar dongoy sëriñ booba mer ci toog gi mu toog ci kaw lal ba ñuy wax naan nañ ko fa fekk wax ko boppam wàcce ko lal bi ba yàgg ñu juboo ci ne ginnaaw day jaay ne kilifa la nañ dem natt ko su fekkee nattu nañ ko xamul dara ñu jëflante ko ak moom mu wàcc lal bi ñu ñëw daal ne ko ñun ne dañuy jàng ci sëriñ bi te dafa génn ten bëggoon a jàng ñu bëggoon nga tëralal nu sunuy bind balaa ñëw mu ne leen indi leen téere yi ku ñëw toog nara ubbi mu ne la jëru ko wax ma fi ngay tàmbalee ak fi nga bëgg yam soo ko ne baat sàngam laa bëgg a tàmbalee baat sàngam laa bëgg a yem mu téen di tari di la firil di tari di la firil ba nga àgg fa nga ne ko baax na nga topp keneen jàll si ba ñoom ñëpp ñu àgg kon kooku mel na ne Serigne Touba radiyallahu taala anhu bëggoon bi sëriñ bi dem gànnaar itam bokk na ci ñim yóbbaale woon ku nekk xam na nit ku weex ni mu xeebe nit ku ñuul ba Serigne Touba demee gànnaar. bokk na ci la ko naar yi wax foofa mooy fii de ku fi nekk alxuraan lay naafila kaamil bi lépp lay naafila ginnaaw ñëw nga nag tey boroomi xam-xam kon naafila gi yaa ko aaye keroog seex aafiya rakkam ju tedd ja moom la jox muy naafila naafila fa kaamil bi ba mu àgg amul benn naar bu ko gàgganti njàngin wi itam xebatuñ ci dara waaye xam guñ ko xamoon ci ak taalibe taxoon na ba muy jébbal sëriñ bi boppam di ko yeesal dafa jël ak buum takk ko ci baatam jox ko sëriñ Tuubaa ne ko bis ni tey na nga xam ne lew naa la nu la neex def buum googee ba ca sëriñ Tuubaa téye wax nañ ne nanguwu ko woon a tekkiwaat da ko bàyyi ci baatam taxoon naar yi jàpp ne ab jaamam la ba dañ daan ñëw man gi alxuraan tax ñu daan ko wax ne ko sa jaam bii danoo bëgg nga jaay ko kookee mooy waajuru sëriñ Abdul Akram bokk na ci wàccuwaay yi mu am itam sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu bi mu tabaxee jumaay njaareem ba noppi sëriñ Aafiya la def imaam ba sëriñ Tuuba julli na ci ginnaawam fekk nañuy ñuy julli sëriñ Aafiya di jiite mu dox ci sàppe si ba àgg ca ginnaawam taxaw sëriñ Aafiya jiite ko julli ba mu noppi loolu itam firnde la ci wàccuwaay bu ma am te mooy waajuru Serigne Abdoul Akram moom yi nga xam ne moom ngeen tuddee bés bi Serigne bi itam féetale woon na ko yu bëree bari ci biir këram ba ci ñi nga xam ne ñoo daan nekk ci biir kër gi ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi Serigne Aafiya la ci sëriñ bi daan yabal mooy dem lijjanti ji leen indi leen ci biir kër gi ñu nekk ak sëriñ bi. nekkoon ci dëkk boo xam ne xawoon naa sore lool ak njaareem ci dox waaye soxla ko sëriñ bi di soxla ak àggoon na ci saa su nekk muy yónni sëñ Moodu Farmata doomam mi taawam su toogee ba yàgg mu ne ko Moodu demal wool ma sa baay sëñ Moodu Farmata dafa doon jëmm ju tuuti ci saayir ba noppi pësseef ba taxoon bu ko sëriñ bi yónnee du taxaw day daw ba àgg foofa te diggante dëkk bi mu koy wooyee je ak kër gi xaw naa jege fukki kilomètre te it dafa yoroon asma su dawee ba àgg woo ko dawaat dellusi su sëriñ bi waxee moom ba noppi su toogaatee tuuti soxlawaat ko del ne ko Moodu demal woon ma sa baay ba ay nit a ne ko moom day Pastef fa ko jàpp Mbàkke waaye fa koy wooyee ji sori na ci la sëñ bi wax ne sëñ aafi mënumaa sori nañ ma ko indil fii sama wet foofee ñu ko indi itam fekkoon na kilifa gu mag dëkkoon fa di seex bu mag waaye sëriñ mëndumbe ca Pastef ba moo ñëw wax ak sëriñ boobee mu mel ni moom moomee foofee moo ko gënaloon sëñ mëndumbe ànd ak ay taalibeem ñëw ne leen yanu leen néeg ya ñu yanu néeg ya topp ko néeg bi mu nekk la njëkk a semp yanu ko mu ne mu ne ko bu yeboo nga ñu dem ba fa nga bëgg ma tegal la ko fa nga ne ma fii laa bëgg foofee la sëñ Mandoumbe yóbbul kookee këram ñu sampal sëñ aafe foofee ab néeg defal ko fa kër muy kër googu yi nga xam ne tey jii fi la dëkk di ndejooru sëriñ bi radiyallahu taala anhu kon ci loolu noonu la ko sëriñ aafe jege woon sëriñ bi it musta nangu mu dem fenn mas na ko wax ne maa ngi yow taluñu di wëreelu di wuti taalube dama bëgg nga toog ci sama wet may jaamu yàlla ma ñu ànd di jaamu yàlla su ëllëgee ngay sama seere waaye itam sëriñ bi tànnaloon na ko bis bu muy wuy ji sunu borom ndax waxoon na ko ne yaag Cheikh Anta sa mag saala yaa koy jiitoo àjjana moo tax ba ñu ñëwee ne ko maam Cheikh Anta day tawat na ba amatuñu yaakaar ci ak desam keroog wax nañ ne batale na lu mu batale ndax danaan wax ne man day sëriñ Touba ay waxam ak alxuraan ñoo yem ci man maanaam lépp lu ma wax ak lu ma yàlla wax ñoo yam ci man ndax xam na ne dana am keroog ba mu àggee di julli ca julli ga foofee la ko sunu borom moome ci biiru julli la ko yàlla moome subhaanahu wa taala nga gis ne loolu cër bu kawe kawe la kooku mooy waajur Serigne Abdul Akram bi ñu xoolee diggante bi mu nelawee ak bi maam Cheikh Anta nelawe ñeent fukki waxtu la moom lañu ñu rawantee kon sëriñ tubaa lam ko tànnaloon muy def ko imaam noonee la euh, wuy jee Serigne bi itam mooy ne ci biiru julli ci la noppaloo ba ñu laajee fan lañu ko jàppa denc dañoo wax ne moom day ay weeyam su ko masaana lebbi mbaa mu watu da ko daan jox ab taalibe ne ko yóbbul ma ko suufus Tuubaa suulal ma ko fa loole moo tax ñu yóbbu ko Tuubaa ne ko Daaru Salaam koy denc ñu jële ko Daaru Salaam yóbbu ko Tuubaa bokk na ci ay jagleem fonk gu mu fonk julli mas naa jëm ci jumaay njaareem ji di julli ji xiin wi sàqi muy dox di dem dem na ba àgg ci jumaa ji te ak ndox laalu ko te booba itam asamaan saa ngi taw ñi ànd ak moom ñëpp ñu ngi taw te waaye moom ak ndox laalu ko loole doy na sëkk ci daraja ci ku noonu bu dee sa waajur rawatina itam nag Serigne Touba yaral la boppam kon Serigne Abdou Lakram ci lii la ganee jamono ci waajur wu tedde nii ci biir oroomi sëriñ Touba radiyallahu taala anhu fala màgge ba ni ni mu dalee jàng léppam foofee la ko defee ba sëriñ bi gërëmal ko boppam ndax ñoom sëriñ Touba seenub liggéey alxuraan la leen féetale woon muy seenub liggéey ku ci jàng ba mokkal alxuraan lépp loo xamante ne bii liggéeyal Serigne Touba dana ko maye keroog am nga ko ci Serigne Touba Serigne Abdoul Karim ci loolu la nekk kon ba ni seexul xadim radiyallahu taala anhu wuy jee sunu borom ci ay at boo ko xoolee moog Serigne Salihu Mbacke ñoo maase ci Zahir mi ngi gane jamono ci kasu rajab ci 1915 Serigne Salihu itam 1915 la foofu ci njaareem ñoo daa ànd itam ñoom ñaar ku xaritoo woon la ak moom ba. am na bi sax sëriñ Saaliw ñëw di ko seet ci kër sëñ aafe gi booba doon tut tànk dajeeg sëñ aafe sëñ sa aafe laaj ko kii ku mu doon mu ne ko man la saalihu mu ne ko moom kan mu ne ko moom ku baax ki mu ne ko koy seet mu ne ko sëriñ Abdul lakkaram mu ne ko da koo xam mu ne ko sama xarita kero bi sëñ aafe xëyee dafa woo sëñ Abdul Akram ne ko war ngaa sant yàlla bu baax lu toll ni doomi sëñ Tuubaa comme ne sama xarita war ngaa sant yàlla bu baax loolee ci la ñu taqoo ñoom ñaar ba doomam nettali na ma muy sëriñ Basiiru Mbàkke ne ma sëñ Abdou moo ko ne sëriñ Saliou ba muy njëkk a seete xel koom noo àndoon maak moom kero sax day réeroo nañ fa ak suba maak moom ba tàkkusaan la ñuy doog a gisee ci biir xel koom kon noonu la meloon di jëmm joo amoon ak taalibe jëmm joo xamante ni itam ñim bokkaloon sëriñ Touba ñuy ay magam ñëpp ko nawoon ànd naag Seex Muhammadul Moustapha radiallahu taala ak magam ji sëñ Modou Farmata ba Cheikh Mouhamadul Moustapha làqu mu ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadil ba Cheikh Mouhamadul Fadil làqu mu ànd ak Cheikh Abdoul Ahad ba Cheikh Abdoul Ahad tuddee na ko doom ju ñuy wax sëriñ Abdoul Akram ma nga dëkk ca Kàbb Gay kon loolu firnde la ci wàccuwaay bu mu amoon ci sëñ Touba ak njabootu sëñ Touba gi toog naa ak sëriñ Moustapha Abdoul Akram mu wax ma ne. sëriñ Abdou Lahad day musta wutal fii waxtu saa su nekk dafa daan ñëw bu fi sëñ Abdou nekkee ak bu fi nekkut a ci am léeg da daan ñëw ba agsi ci pénc mi mu gaare otoom muy feeca affaire Lakaram toog ci pénc mi ba demam dañ koo def ñaar te muy benn jaamu yàlla mooy liggéey liggéey itam mooy jaamu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala musuleen a teqale soo demee ci alquraanul karim danga fa fekk wabtaxi fi ma aateeka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min addunya wa axsin kama axsana ilayk wala tabxil fasaada fi lard inna allaha la yuhibbul mufsidin sunu boroom wax ne li yàlla jox na nga ci sàkku dunduk ëllëga muy kërug ëllëga muy alaxira waaye bul fàtte sab cër ci àdduna te nga rafetal ni yàlla rafetale jëme ci yow te it bul sàkkoo yàq ci suuf si ndax yàlla bëggul ko yàq nga gis ne foofu aaya bi bi ko yàlla tuddee muy loo xam ne yonent yàlla Muusa moo ko doon dénk Xaaruuna daf ko fee booleel ñaar mooy ne ëllëg nala tax a jóg waaye bul fàtte tey ndax kenn ku nekk xam na ne ci liggéey loolu mooy liggéey liggéey ci la ñuy amee yóbbalub ëllëg mooy tax ëllëg jàkk loolu yi moo tax lislaam musu leen a tàggale bu fekkee liggéey ba mel na ni nuy waaj a wax incha allahu taala kon danañu tënk waxtaan wi ci ñetti tomb benn ba mooy jaamu yàlla beneen ba ca tege mooy liggéey ba ca tege mooy atte yi nga xam ne lislaam teg na ko ci kaw ab liggéey te koy liggéey ku nekk war koo xam ba ca tege mooy ana lan moo tax lislaam jël liggéey lënkale ko ak jaamu yàlla ba tax ñu naan liggéey ak jaamu yàlla kon bu ñu waxee loolu rek dañuy dikk ci tomb bu njëkk bi di wax ne jaamu yàlla mooy firndeel jaam bi doon gi doon jaamu bi yàlla sunu borom subhaanahu wa moo wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun binduma jinné ak nit lu dul ngir ñu jaamu ma dayoo bi tax sunu borom bind nit bind jinné du lenn lu dul ngir jaamu ko amut lenn luñ leen sant loo xamante ni bii du jaamu yàlla wala lu lay jàpp ndal ak jaamu yàlla te loolee dee daal di dugg ci atteb jaamu yàlla kon li tax yàlla bindunu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag boo ko dee tënk mooy jëfe ndigali yàlla yi bàyyi tere yàlla yi buñ nee jëfe ndigali yàlla yi mooy mboolem li yàlla digle nga def ci sa kem kàttan ba noppi defee ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee jaamu yàlla gi dëppoo na ak ni ko yàlla digle te dëppoowut ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee su boobaa du tudd ak jaamu yàlla gu ñu nangu waaye day doon loo xam ne yàllaa ko digle ba noppi nga defee ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi doon defee te mooy muy lu ñu yoonal ba noppi nga teg ko ci sunna loolu mooy jaamu yàlla gi nga xam ne mooy ndigal tere itam mooy nga bàyyi ko te yàlla tax tere soo ko bàyyee te fekk na da ngaa dem ba mënatoo ko su boobaa du doon ak jaamu yàlla ki koo xam ne daa yore alalam di ci def lu naqari yàlla ba xëy yoratul dara ñàkk ngam ko ñàkkatee mën a def kenn du ko ci bindal tuyaaba ndax bàyyiwu ko ci tànnam bàyyiwu ko ngir yàlla waaye daf ko bàyyi ngir ne da koo mën a koo xam ne daa yore kàttanam di ci mooy yàlla ba xëy tëdd tawat kookee bàyyi ga mu bàyyi mooy yàlla googe du ca am tuyaaba niki koo xam ne day déglu jëw ba xëy tëx walla muy wax lu araam ba yàlla dogal mu mujj muuma kookee loole mu bàyyi kenn du ko ca bindal tuyaaba moo tax tere yàlla yi soo koy bàyyi da ngay tànn bàyyi ko ci lu dul loraange ci lu dul ñàkkati ko man su boobaa lay doon ak jaamu yàlla goo xamante ne yàlla daf la cay bindal tuyaaba kon jaamu yàlla buñ ko tënkee rek mooy jëfe ndigali yàlla yi te teg ko ci sunna bàyyi tere yàlla yi subhaanahu wa te tànn bàyyi gi nga xam da nga koo baax te fekk na manoon nga koo def loolu mooy jaamu yàlla muy lu yaatu loo xamante ne du jar ñu ci xóot ñi fi nekk ñëpp ay jullit lañu ñi fi nekk ñëpp a jàng diine kenn ku ci nekk ba nga dalee jaamu yàlla ak léegi yàgg na kon jaamu yàlla du lu ñu leen di jàngal beneen bi ci tes nag mooy ñu dugg kon ci li ñuy wax liggéey. lënkale ko rek ak jaamu yàlla ndax liggéey ak jaamu yàlla tàqaliko ndax bépp jumtuwaay boo xamante ne balaa lu war a mat jumtuwaay ba dafa teew ñu jaar ca jumtuwaay boobee atteb lu war lay am kon jaamu yàlla bu dee farata di wartéef lépp luy tax jaamu yàlla googee mat loolee day daal di yore atteb farata yore atteb wartéef te loolee liggéey ca la bokk lool yi moo tax ba liggéey di warteef di farata ci kaw ab jullit ndax jumtuwaay la boo xam ne mooy tax sag jaamu yàlla mat waaye nag liggéey balaa tudd ab liggéey ci lislaam day fekk muy liggéey boo xam ne yàlla daf koo daganal bëri na ñu jàpp ne liggéey mooy loola mën a may alal loole mooy liggéey waaye ci kaw mu doon liggéey boo xamante ne lislaam daf ko tànn ndax liggéey boo xam ne yàlla daf koo tere booba liggéey loo ca mën a amee itam jëlee woo ko ci liggéey kenn du ko tuddee ab liggéey ki di jël alali jàmbur ci dul seen teeyug bakkan moo xam ci carte nga koy jëlee moo xam ci bëre lay doon dóor borom mu daanu nga jël alalam moo xam ci kar ko nangu ko la wala lu mën a doon loo xamante ne du ci teeyug bakkanam loolee lislaam du ko jàppe ab liggéey niki noonu liggéey boobe itam bu fekkee liggéey bu lislaam jàppeb liggéey itam na nga ko def ci waxtu yi nga xam ne lislaam maye na ñu def ko ci waaye na ko def ci anam yi nga xam ne itam lislaam maye na ñu jaar ko ci anam yooyu kon loolu dana la jox wàccuwaayub liggéey ba nu muy toll ci lislaam mooy ne liggéey mën naa dagan ba noppi aw waxtu ñëw tax mu araam kon kii liggéey lislaam daf koy gàll mu xam bépp àtteeb lislaam bu aju ci liggéey ba mu nekk doog a saafoonteeg liggéey ba doog a jonjoo ak moom te mooy ne soo demee ci alxuraan danga fa fekk sunu borom di wax ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yowmi aljumaha fasaaw ila dikrillahi wa darul bay'a dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu wootee ngir julli ci bisub ajuma na ngeen dem ca tudd yàlla ga te bàyyi njaay mi loolu yi day moo gën ci yéen su fekkee xam ngeen nga gis ne foofu sunu borom daa wutal njaay foofu waxtuum ko tere waaye laataa ñuy woote kenn terewu ko woon te mooy laataa noddug ñaareel bu ñu jullee ba noppi itam kenn tereetul jaay nga gis ne kon daganal na liggéey waaye wut na waxtu woo xamante ne tere na ku ci liggéey ndax dafa am waxtu yoo xam ne yàllaa ko moom xajoowu ci lu dul jaamu yàlla ak donte liggéey jaamu yàlla waaye dafa am xeetu jaamu yàlla buñ ca war a def kon loolu taxoon na ba liggéey képp kuy saafanteeg moom war ngaa xam lépp lu ci aju ci àttey lislaam ndax liggéey bii may def waxtu yépp lees ko mën a def wala déet waaye boo xamee àttey itam danga xam ne lislaam day bëgg na liggéey bu ñuy def ñu rafetal ko te mooy nga jox liggéey ba àqam boo dee liggéey ak nit mu di la fay di la fay ay waxtu waxtu yooyee ngay liggéey mu di la ko fay waxtu wu ci génn te génn ci sa coobare te génn ci sa tànn suñ la ko fayee danga ko war a teqi delloo ko boroom day mel ni lu mel noonu ragal naa ne mas naa koo tudd fii ci ay jamono ci misaal dañ la jox ab école ngay jàngale ñu di la fay weer weer wi fanweeri bés la bis yi nga ciy jàngale huit lay tàmbali ba cinq ci ngoon wala boog ba midi ci bëccëg gi huit ba midi loo fi def lu dul jàngale su boobaa yaa ngay lekkaale loo xamante ni bii maanaa liggéeyoo ko lu dul nag ne da nga caa am ngànt ci misaal nga dem ba waxtu jot ci biir nga daal di fay bàyyi élèves ya génn yare sa portable. di woote loo xamante ne leer na la ne mënoon ngaa xaar ba wàcc wala nga génne sa bank toog di féexlu waxtu ya di jàll te par ay waxtu lañ lay fay su boobaa waxtu yooyee jàll lekk nga loo xamante ne bii du saw ñàq danga ko war a delloo yooyu nag lislaam day sàkku nit ki xam ko ci ab liggéey noonu la demee itam ci am njaay ak yeneen ak yeneen ci misaal bu dee ci am njaay lépp loo xam ne danga nga koo jënd njëg nga ko jëndee saa yoo koy jaay. lislaam tere na nga jaaye ko lu ñett te njëgg wala boo ko jaayee su ko kan ko jaay xamee su dellu see di ko xàcc si lislaam digal na la nga xàcc ko ndax bénéfice maanaam li nga jaayee dara wërta tolloog ñetteelu yoonu loola maanaam bénéfice wërta mat ñetti yoon njëg gi su boobaa lislaam daf lay dellooloo loole nga xamante ne moom nga jaayoon yooyu nag lislaam dafa digle nit ki xam ko ci liggéey bu mu mën a nekk lu ko moy liggéey ba dana doon ak jaamu yàlla mu di ca toggoo ay bàkkaar di jël lam cay amee di ko dundale ak njabootam te lam cay amee bu boobaa du doon lu lew te tib boo xamante ne lewut bu fekkee yaa ngi koy dundee mbaa nga di ko dundale ak sa njaboot soo ko dee dundee day rey sab xol di ci dindi leeru ngëm boo demee ci masalikul jinaan sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ko wax na ne fa kullu san bin min xiyaami leyli yamnahu aabidan fa saddiq qawli nee na bépp bàkkaar dana dox diggante nit ki ak taxaw guddi bu fekkee nit ki ab jaamukatu yàlla la laakinamal axasu bi taathiiri fii xalbi muuminin bi xawlil xiiri aklu xaraamin aksu xillin fa yuqaal yuuthiru fi tasfiyatil qalbil xalaal wa qiila kam min akalatin xad manaxat min alqiyaami leylatan fa xasirat ba fa bayre yam mu wax ne bakkaar bu mu mën a doon dana dox diggante nit ki ak taxaw naafi la guddi bu dee jaamukatub yàlla waaye bakkaar bi ci gën a jagoo ak jeexintal ci xolub ku gëm nga xam ne moo ci gën a mën a gaaw a jeexintal ci pas-pasub ku gëm nee na mooy lekk araam mi nga xam ne mooy safaanub lu dagan nee na loolu day jeexintal ci laabal ab xol lekk araam wax nañu ne dana waral ab xola lëndëm ndax benn dërëm bu araam mi ngi tolloo bàkkaar ak ku yéeg ak yaayam ba ca kaw kaaba ga mu sëy fa ak moom bàkkaar ba naw mu toll benn dërëm bu araam nooni la toll loolu nag ku ko jàppe sab dund danga nga xamul li ngay lekk nu mu toll kullu laxmin nabata bi xaraamin fa naaru awlaa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne suuxu ndawal woo xam ne màggee na ci lu araam sawaraaga na a yee ca loolu te mooy loo ci lekk mu dolli saw yaram dara maanaam lam ca dolli lu nekk sawara lañ koy dugal boo liggéey yomal xiyam kon day mel ni nit ki liggéey bu mu mën a dugg war naa xam la dagan ca liggéey ba ak la ca daganut soo ko joxee sa njaboot su ëllëgee yomal xiyam <coughs> sa njaboot danañ taxaw layoo ko ak yow bala ngaa jàll danañu ne sunu borom dey li nu teewoon a mën a jaamu yàlla. mooy ne sunu baay daf ñu daaw dundale lu lew loolu yi moo taxoon ñun ndekete mënuñu woon a jaamu yàlla tey jii la ñuy dogaleer danoo bëgg nga jëlal ñu sunu àq ci moom laata muy jéggi fii di dem lool yi moo taxoon lislaam bëgg nit ki jàng diine laata muy soobu ci yu bëree bëri kon day mel ni war naa sellal liggéey boobu ba lu araam du ca dugg du ca wor du ko rax liggéey ba itam nam ko diggee mu di ko def liggéey ba nanga ko diggee war ngaa wàccoo ak moom te mooy waxtu woo ne waa ji lii nga may ñawloo walla lii nga may wutloo waxtu sàngam na nga ko jëlsi saa yu ñëwee war naa fekk liggéey boobee noppi loolu itam dana tax la nga cay lekk du doon àq bu ko defee mu leb la liggéey nag loolu moo tax lislaam lënkale ko ak jaamu yàlla ndax mënuñoo tàggale ko ndax dana la dimbali ci sag jaamu yàlla ba nga tala mën a jaamu yàlla dana la dimbali ba nga am kàttan ba ñi la naroon a tee jaamu yàlla may la nga mën a jaamu yàlla dana teral lislaam itam ba kenn ku nekk xemeem cee dugg ndax diine joo xam ne soo ci duggee dañ lay dimbale foo tollu diine joojee kenn du ci xemeem a dugg moo taxoon diine yi fi jaaroon yépp soo ko xoolee seeni borom borom yi métier lañ woon muy yonent yi yonent bu fi mas a jaar am nga loo doon liggéey Seydina Adama da daan bay bi mu jógee àjjana indaale na aw jiw woo xam ne ci kaw suuf. moom la njëkk a liggéeyee di ko bay Seydina Ibrahima <coughs> daraan tabax jàng nañ ci alxuraan way si yarfahu ibrahimul qawaahida min al bayti wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim boo demee feeca maqaamu ibrahim ca kaaba ga fam taxawoon muy lu mel ni móol ba mu defoon taxaw ca ngir jotutut tabax bi loole boo demee ba fii nu toll ma nga fa fa tànkam ya marqué woon ma nga fa kon métier la amoon <coughs> muy dafa daan maçon kon yooyu métier ku koy liggéeyee na nga xam ne yaa ngeeg métier tedd yoo xam ne ay yonent yoroon nañ ko lii di bay lii di maçon Seydina Nuuhin alayhi salaatu wasalaam métier menuisier la yoroon jàng nañu ci alquranul karim sunu boroom ne ko was naa il fulka bi ayunina naa nanga liggéey gaal gi maa ngi jàkkaarloog yow mu mu wut ay pontam wut ay garabam yett ko di daaj ak dagg ba defar ak gaal Seydina Idrissa alayhi salaatu salaam ab tailleur la woon daraan ñaw moo njëkk a ñaw dara sol ko moom Seydina Idrissa yonent yëpp kenn ku ci nekk amoon na métier Seydina Daawuda alayhi salaatu salaam manees na ne ab tëgg la woon ay mbubbi koŋ la daan defar muy mbubb yi ñuy xaree ak ay ngànnaay di ko jaay di ci am lu muy dundee yonent yeneen yi ci des yëpp noonu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasalaam niki noonu moom itam baykat la woon maanaam yoroon na itam la aju ca dundub réew ma ñu dénk ko ko niki noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daraan sàmm niki nga xam ne yonent yàlla Muusa moom itam ab sàmm la woon jàng nañu ci alquran bi ko yàlla ne li sa loxo ndeyjoor lu mu doon mu ne ko xasaaya hiya xasaaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala xanami <coughs> lii ma yor sama yadwee dama ci sukkandiku su may dox waaye itam ci lay sàmm ci lay bàccal sama jur gi niki noonu itam saxaaba yi toppan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu ñoom ñëpp ay métier lañu ñu yoroon boole koog di tasaare lislaam di xare ji Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala anhu danaan jaay ba bi mu toogee xalifa daana wékkoo ay yére di dem ca marché ba di ko jaay ba am ñu ko wax bis ne ko lii ngay def day day woyofal xilaafa gi day tax kenn du ko fonk mu ne leen su ma sànkee àqi njaboot bi ci kër gi day seen àq àq yéen ñii ma jiite danaa ko sànq ba dañoo mujj dogal ko lu mel ni ab salaire kii na xool xooleeku na waaw dañ na waaw loolu yi taxoon na ñu mujj dogal ko lu mel ni ak payoor ngir mu toog Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu taala anhu niki noonu moom itam yoroon na métier yoroon na ay tool Seydina Ousmane commerçant la woon bu mag boo xamante ne daan jëndi ay njëgg yoo xam ne marchandise lay def su ñëwee di ko jaay ba sax gis nañu ne ci loolu la amee cër ba mu amoon muy jamono ba xiif ba amee mu jëndi ab dund commerçant yi kar ko kenn ku nekk tegal ko ci bénéfice bu mag loo ko wax mu ne la dégg naa ci lu ko gën a rëy koy jël jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ko jullit ñi ci la sëñ bi waxee ne baata nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridam minallahi dat tafdilu kubaaru kon liggéey naka jekk dafa àndoon ak jaamu yàlla seydina aliin karamallahu wajhahu nga xam ne moo mujj doon xalifa bi yonente bi sallallahu alayhi wa ci ñeent ñi ñu tànnoon daana wax ne la xamliya saxra min ximamil jibaali ahabu ilaya min minani rijaali yanu aw doj bàyyi ko moom ca kaw montagne ya moo ma gënal tàllal sama loxo góor mu di ma may nit ñaa ngi naa ma liggéey wuti dara gàccee ngi ci ma ne leen dee gàccee mi ngi ci toroxte gi ci laaj waaye du ci liggéey Seydina Omar ibn Xataab nuyoole nañ koog nit ne ko moom day jaamu yàlla képp la féete woo mu ne ana ñi koy dundal ñu ne ko dafa ah, <coughs> fu muy dundee ñu ne ko dafa am ñu ko yore lekk maanaam akuk naan mu dóor ko yar bi mu yoroon ne ko ñooñoo la gën fopp kon liggéey naka jekk lu lislaam dëgëral la lu lislaam boole ci aw doxinam la ba sax cheikhul xadim radiallahu taala anhu ñim àndaloon ñëpp lool la àndewoon ak ñoom nettali nañ fii sànq sëñ abdul akram ne daana bayee fee ca aafe ay téeméeri bërigo di ko indi di ko jox cheikh abdul ahad muy ab dund maam cerno maam cheikh anta ñoom ñoo ñëpp ay liggéeykat lañu woon waaye sëriñ tuba radiallahu taala anhu daana ci bëgg a jariñu bi mu waxee loolu sëriñ bi radiallahu taala anhu daa doonoon koo xam ne lépp loo ko wax te tontu la doon tontu loo xam ne mbooloo mën na koo jariñoo du la ko beral yow dong dalay wax demal woote ji sëriñ bi ne ko boobu laaj day tontam ëpp na la demal woo fere yi ñu ñëw mu daldi génn daan sëriñ bi nee na ku bëgg jariñoo man ngaa jege si ba ñu ñëwee sëriñ bi ne ko jaaraatal ci li nga waxoon mu ne ko man dey mbàkke dama amut ndey awuma baay awuma mag awuma rakk te bëgg jariñoo sëriñ bi ne ko demal ci àll bu kenn moomul ku dul yàlla nga róoj ko ba mu set su tawee nga ji ko di ko wattu ba mu sax nga def julli juróom ca waxtu wa muy sa baay def liggéey ba muy sa ndey def muñ muy sa mag def ñàkk bor muy sa rakk te bu liggéey ba àggee bu ko yàq ndax yàlla bëggul ko yàq nga gis ne lii la ko sëriñ Tuubaa digal am na keneen ku mas a ñëw ci moom koo xam ne xaw naa niroog kooku ne ko man dey mbakke dama amut ndey awma baay awma nijaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko bëggoon a ñëw fii fi yow nga yor ma sëriñ bi ne ko loolu jëru la tooge fii demal woo fere yi ñu ñëw <coughs> mu woo ñu ñëw sëriñ bi ne ko nga lan mu ne ko man dey dama amut ndey awma baay awma nijaay te bëggoon nga yor ma ma toog fii fi yow sëriñ bi ne ko danaa la booleeg ñett ñoo xam ne soo taqoog ñoom lu ñooñi fu la ñooñi féete woon danañu la fa féete na ko boo delloo nanga def jaamu yàlla muy sa baay def liggéey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay ñàkk ñett yooyu jërta tooge fii fi nun daal di ko yeewi kon ci gàttal lii moo taxoon lislaam boole liggéey ak jaamu yàlla te mooy dana tax li ngay lekk lew te tibb lewut mu ne su ko jaamuwaale yàlla yaa ayyuha rusulu kulu min at wax ma amalu saalihan la alquran wax yéen yonent yi lekk leen ci yu teey yi te jëf lu baax kon bala ngaa mën a jëf lu baax faaw nga lekk lu teey te lu teey mooy lu lew dana dëgëral lislaam itam ndax dana tax jàppalante am ci lislaam ba tax ku jóge feneen dugg ci lislaam du xemme ma dellu waaye ku nekk ci lislaam itam du fi bëgg a jóge ngir di dem feneen dana tax itam ñu mënal sunu bopp lépp gis nañu yoonu wi ñu tabax ci léggéey lépp lu ñuy def ñoo koy defal seen bopp Serigne tubaa jumaa ji mu njëkk a tabax muy njaareem ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett la laajte bañ ko dajalee juróomi million la da leen a wax na leen lépp lu ngeen di defati na ngeen ko defee nii ndax lu ko moy des na leen manal te ku leen manal sañal leen te leen sañal yàlla na fekk muy ku leen war a sañal. loolu yi moo taxoon mu doon soññe lool ci liggéey ba taxoon mag ñëpp kenn ku ci nekk goron ab àll wut ay tool di liggéey boole ko ak jaamu yàlla kon ci lii la ñuy rotale sunuy kàddu di ñaan sunu borom subhaanahu nangul nu lépp loo xamante ne wax nañ ko fi di ñaan itam bis bi yàlla nañ ko yàgg def te daje ca ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Makhtar